une chaîne de télévision culturelle et religieuse Rafah TV ñëppay dañ agréer turu aji maam bu sa Mbàkke moom sëriñ Abdou Samad moom sëriñ Touba nga xam ne moom la soxna maam Faati Mbàkke tuddee bis bi soxna maam Faati soxna aji maam bu sa neen mi ngi nuyu mbooloo mi nuyoo bi ñu ngi koy teg ci loxol sëñ Mourtala mi ñu fi fekk mu teg ko ci njabootu sëñ muutu képp jotali ko ci njabootu sëñ Abdou Xaadir soxna maam bu sa nee na mi ngi lay sant bu baax soxna maam Faati di rafetlu lii nga def rëy na ci moom lool te yëg na ko bu baax ndax xam na li tax nga def ko mooy sa xel dem na ci diggante Cheikh Abdou Xaadir ak sëñ Abdou Samad sa xel dem na ci sa waajuru tedd ba sëñ Moodu ni mu ko jàppee woon yooyu yëpp tax na nga jël cër bi tudde ko sëñ Abdou ñëw yëgal ko ko mu yabal ma nag ma ànd ak njabootam ngir wan la ni lii nga def rëy rëy na ci moom mi ngi lay ñaanal ci daraje sëriñ Touba lépp loo yéene ak lépp loo bëgg ak loo ci fas rek ci biir bi sëriñ tubaa defal la ko ñu ngi siyaare soxna moom yu baax ci turu aji maam Bousso ah soxna maam Bousso nee na soxlam sedd na lool ci cër bii nga xam ni eh, soxna Fatou jox na ko suñu bu samat caax li ko li ko li koy dëggal rek relation yi nga xam ni sëriñ bi doon waxtaan léegi wax na ko fi ci sëñ Moodu taxawaay yi amoon ci soxna maam Xari Mbar mi nga xam ni <coughs> mooy waajuru soxna maam Bousso kon yooyu yëpp tax na cër bi eh, daana bari ay cër yëpp danañu rëy ci moom waaye bii moom xolam sedd na ci bu baax ba tax na moo ko njabootam yëpp ñu ngi lay yëgal seen mbégte di la ñaanal di la wax mbég moo xam ne am nañ ko ci bis bi moom de bu fekkoon ni sax ak wér may na ko ko mooy ñëwal boppam moo tax ñu yabal ñu waaye amoon na yéene yi moom ñëwal boppam lu mu gàtt gàtt teew fi ba nga ba nga xam ni cër bi réy na ci moom kon mu ngi lay ñaanal bu baax ci daraje yi sama am ah ndax wax dëgg yàlla pastéef rek nga ko won ab yar nga ko won fonk nga ko won loolu lii moo ko dëggal kon mi ngi lay cant cant goo xam daal amul fu mu yem di ko seereel soxna si toog nga xam ne mooy kilifa jataay bi tey di ko seereel sëñ Mourtala mi nga xam ne moo fi nekkal njabootu sëñ Moodu nekkal fi njabootu sëñ bi Xaadir aj maam bu sëñ xolom sedd na bu baax moo tax mu boole ma ak ak njabootam soxna maam bu ak soxna ma ak soxna ma Asufal ngir war la ne daal bis bi bisama yëg na ne bi sama euh, rëy na ci moom rëy na ci njabootam ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm ni mu ko waxee woon xëy na man maa ko mënut a jotal noonu waaye kàddu yu rafet la soxna si waxoon lu ci dëng rek ci la waaye moom bëggoon na bëgg bëggoon na bëggoon naa mu gën a jot waaye ñoo ngi sant ñëpp di ñaan ñu teew ko ne gën a déwén lépp loo ci bëgg euh, li nga ci ñaan lépp suñu borom nangu ko def ko aw yiw te ko ci jullit yëpp jërëjëf Mbàkke jërëjëf nee na bi mu santee di ñaanal mi ngi sant ñi nga xam ne ñooy bokki boppam yi nga xam ne bu mu tàmbalee bis bi ba léegi moo ñoom ñoo ko ànd ci jëf ak wax ak yéene di mboolem waa kër Serigne Modou mboolem waa kër Serigne Abdou ak waa kër Serigne Touba ñëpp. di ci teg ñi nga xam ne dafa séq ak ñoom ci waa kër waajuróom bu jigéen soxna Mbène góor ak jigéen kenn ku ne fi nga ko war a féete fépp féete nga ko fa fu mu taxaw ñu taxaw fa ci wax ak jëf ak yéene ju sell. nee na xolom sedd na guy xelam it dal na nee na barke bi nga xam ne moom lay sàkku ci liggéeyal bii muy liggéeyal waajuram wu tedd ba sëriñ Modou Mbacke yal na ko ci yàlla fekk bokkook mboolem ku fi teew ak ku ci am yéene nu teew ko at yu baree baree bare te yàlla saa borom nangu ko def ko ay xéewal sotti ko mbooleem ñi nga xam ne ay kilifa la ñuy jiitu nee na nag barke bi nga xam ne moom la ciy sàkku te yéene ko ñëpp te dina ko ñaanal loolu lu mat a dalum xel la ndax ku am ngërëm ku wut ci moom ngërëm rek ngërëm la mën naa yaatu ba àgg fu soob suñ borom te sëriñ Modou yaakaar naa ne waxaat lay doon sëriñ Jili Dia waxtaan wi mu ci waxtaan kenn mënatu koo weesu ak kilifa yu baax yi ci topp mel na melakaan woo xam ne yett yi ci daje ñaanal sa waajur ak bokk yi daje di jokk seenu bokk ak ñaan gi nga xam ne ñaan nañ ko fi di njàngum alxuraan mi ak xasida yi ak salaatu ala nabi ak mbépp yu baax yal na ko suñu mborom nangu sotti ko sëriñ Modou ak mboolem yi jitu ñëpp soxna si yàgg fi yàgg koo taxaw nu yàgg ci gannaawam sëriñ Mourtala it soxna seen koy beral ak cant at mu ne nii la koy taxawoo feeña feeñal ci yéenam ju wér taxaw fi waa kër sëñ Modou gépp mu teewaale leen fi mboolem waa kër sëñ Abdou mu teewaale leen fi waxtu wu ne rek mi ngi fi wetam te loolu lu ci mat seere la a ah, nee na it mboolem ñi fi sëñ baara bu soo lim ñiñ ci limutit xam nañ ne yóbbaale nañ ñooñ waaye cantam gi dañ na fépp sëriñ Modou day boroom ngërëm baax gi mu baax ci askan sëriñ bi doon na ko waxtaane waaye li nga xam ne mooy ngërëmul yàlla bi mu koy sàkku sun borom da ko koo may muy waajuram di sëriñam sëriñ Abdou Khadir ba mu koy wàcce ka fekke wàcce ga nettali na ma dégg muy kilifa sëriñ Abdul Xaadir seeral ko yetti cant ne ko cant gu lislaam di gërëm ab jullit sant nañ la ko cant gu waajur di gërëm doomam santees na la ko cant gu ab sëriñ di sant ab ab dongaam sant nañ la ko kam nekkan ci yow tam ne ko ah, sëñ bi li nga doon wut am nga ko mu ne loolu daal dañ ko def ko laxasaay rek te yokkaat suñ pas-pas kon yitteem kawe woon na lool waaye suñ borom fay na ko kon daal yal na nu saa taas ci barkeem te njaboot gi mu fi bàyyi yàlla guddal seen i fan te wéral seen i cër nun donga yëpp sun xol sedd na suñ xel dal na soxna Faati sant nan la gërëm nan la yàlla yàlla guddal saw fan te yéegal la ca màqaamay sa waa sa sa sa sa sa turandoo yu tedd ya di si di di di di soxna Faati bintu Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa soxna Faati jox inn xaadim rasul ba lépp loo ci yaakaar mu nga am ci lu kawe sa njort noo koy ñaan soxna su tedd si yàlla na na ko ñaan nu doog mbokk ko yàlla yàggal ko fi wéral ko sunum xol sedd na sunum xel dal na yàlla nañ ko teewe ay déwén kenn bañ a wànq ci barkeb Sëriñ Abdou Khadir Sëriñ Modou Mbacke amuñu lu dul moom képp ku yëkkati mbir boole nu ca rek mënuñu laa fay yàlla lañ koy seereel bu ma ci soree sax dana am neneen nu mu demee waaye yaakaar naa ne 1975 bi ni mu fatoo fan at yu manqué benn ndongo su woyof laa waaye am na lu ma xam ci moom waaye yàlla na ko yàlla fayal soxna si yàlla na saw fan gudd say cër wér ak mboolem ku fi teew soxna si nag nee na ci boppam ku fi indaale yitte rek yàlla ko sëriñ Tuubaa faj noo ngi sant di gërëm asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. mu ne mi ngi tàmbalee am nuyoom ak ab siyaareem ci seen waajur wii toog di seen bàggen di soxna muy mbàkkeem seen Abdul Xaadir ñu ngi koy siyaare bu baax. ñu di ko sant bu baax ci teewaay bi mu teew te di ko ci ñaanal bu baax. dëlliwaat suñu yaakaar bu ci li ñu bii mu teew jotaay bi nee na day gën a dëlliwaat seen yaakaar bu baax ci li ngi doon def. xam ne jëf di jëf gi sëriñ bi nangu la. ndax moom soxna moom it nii mu ñëwee day war a ne seere rek la la doon ci jëf ji. ndax sëriñ Modou mi ngi defal bis bi. moo moom ñoom ñaar ñoo bokk Sëriñ Abdul Xaadir waaye nag sëriñ Modou daa nekkoon xaritam. doonoon léppam. ba tax ba tax ba sax tax bari na lu fa sono mooy mi daan ñëw. buy génn di ko gunge dañuy di ko gunge ni mu meloon ci moom tax na dañuy dem ba ci bitti sax ñu far toogaat di wa mottali wax ji. loolu nag ah, ah, kon la muy tegtale ak jaxasoo lay doon. kon nag bu fekkee dañuy defal sëriñ Modou bis bu mel nii. Serigne Sidi Seydi Xaadir ñëwoon ci suba. te ñun ñaan nga ñu doon def muy njàngum alxuraan. ñu dem ba toll ci waxtu yi di def waxtaan wi. moom soxna moom yi mu ñëw nii teew. kon loolu day tegtalan rek di firndeel ne jëf ji ñu koy defal jëfal borom jëf ji nangu na ko. kon ñu ngi yëkkati suñu siyaare. ak suñu jégalu lépp di ko teg ci loxob soxna moom yi. suñu ñu ko jàllale ki nga xam ne moom de suñu ñëw jàllale loo soxna moom it ab yóbbante am nuyoo akub siyaar waaye nag kon ñu ngi siyaar bu baax ak nuyu ki nekk ci bopp njabootu Cheikh Abdoul Khadir gi di Serigne Cheikh Mbacke moom Cheikh Abdoul Khadir. ak mbooleem njabootu Cheikh Abdoul Khadir gépp ñu ngi nuyu it Serigne Cheikh Abdoul mi nga xam ne mooy taawub Serigne Modou Cheikh Abdoul Khadir. ñu teew fi teewal fi sëñ Cheikh Abdou sëñ Modou sëñ Abdou Khadir waaye teewal fi njabootu sëñ Modou sëñ Abdou Khadir gépp xam ne maam mii rek fu mu ne. mën na faa teewal njabootu sëñ Modou gépp ndax lii muy def. ñoom njabootu sëñ Modou gépp la war. waaye ku ci nekk njaboot gi am na cër boo xam ne yàlla moo la koy cërale. moom nag soxna Fatou li yàlla dogal. cofeel ci waajuram lool. mu amoon ak cofeel ci waa waajuram ba lool. diirub mu fi nekk ñun ñu nekk ak moom daa jaxasoo moom. diirub li fi sëñ Modou nekk ñoom ñu nekk ak moom daan jaxasoo soxna Faati. lu mu mën ci lu fi sëriñ Modou di nekk lépp lu lu mu mën moom soxna Faati ci lu baax. ci taxawu ko ci taxawu ko digganteem ak sëñ Modou. def na ko. def na ca lam man gërëm na ko ay ba sëriñ Modou gërëm na soxna Faati ay yoon. loolu ngërëm loolu ko suñ gërëm moo tax mu mën a taxawal lu mel nii. kon nag lu mel nii bu yàlla dogalee suñu mborom jaarale ko ci moom soxna Faati. kon njabootu Serigne Modou yëpp dañ cee war a jàpp te ñaanal ko. te it noonu it la njabootu Serigne def. xam ne lii muy def. xam ne ñoom njabootu Serigne Modou yëpp la war. waaye nag def gii mu ko def moom soxna Faati. boole ko ak sell. boole ko ak sell. ndax moom si sëñ laa nee na xam na ci lu bari. te wax na ko fii ay yoon it. ndax bu ñu gisee fàttali gi dudul mën a ñàkk mooy. am na ñoo xam ne xay na duñ ko xamee ni mu koy defee. waaye bis ba nga xamee ne jàpp na bis bi ak léegi. képp ku mu yaakaar ci yow képp ku mu yaakaar ci yow lu baax. dana yëkkati alalam jox la ko sàkkul ko ak ñaan ci waajuram fii ba daara kaamil di nekk njaarim ci jàngati alxuraan ya ñii jàng xasida ñii zikar ñëpp ku ci ne dana yëkkati alalam wa ñii mu xotti ay tiise yit leen ñii mu togg ay ñam yit leen te loolu lépp nag ngërëmul ngërëmul waajur loolu lépp bu koy def lam cee sàkku rek mooy ngërëmul waajuram la koy soxla woo rafet njort bu baax kon soxna Faati Sëriñ Murtala laa na na nga gën a rafet njort bu baax lii am nii ndax lii am nii seere rek la ci jëf seere rek la ci jëf soxna si bu yeble woon rek mu doy ndax soxna si bu yeble woon rek mu doy mboolem njabootu Sëriñ Abdou Khadre gi ñëpp yeble nañ te ñoo xam ne it mboolem njabootu Sëriñ Abdou yëpp yeble nañ fi li ko tàmbalee ci Sëriñ Seex ba ci Cheikh Basirou. loo tàmbalee soxna moom yi. soxna moom yi far ñëwal teew boppam doon seere si far. Euh, kon si Mourtala nee na ñu ngi sant mbooloo mi yëpp. ci turu soxna Faati. di gën a sant sëriñ Mor Bousso mii nga xam ne moo doon yëkkati kàddu léegi ci turu soxna maam Bousso mën sañu du samat te wax ji mu wax di wax ju leer lool te rafet bu dëggoo rek ci ay xol lay jëm. wax moom bu dëggoo rek ci ay xol lay jëm. yaakaar naa diggante soxna si. te yaakaar na ne diggante soxna si. ak sëñ ak sëriñ Modou. yaakaar naa ne moom ñëpp xam yaakaar naa ne CRSOS moom ñëpp xam nañ ko. nag euh, boo gisee mu yëkk fii mu jot mu tànn kenn ci ñoom. kon nag boo bu ñu gisee soxna Fatou def at mu jot mu tànn kenn ci ñoom. Euh, tuddee ko bis bi. tuddee ko bis bi. fàttaliku leen. ñu bokk fàttaliku leen. loolu lépp dafa bëgg ñu gën a roy ci ñoom rek. loolu lépp dafa bëgg ñu gën a ci ñoom mag ñi rek. te xam ne Serigne Modou it lu baax li mu daan sàkku. da koo yaataloon. mboolem kuy njabootu Serigne Touba ku ne. Eh, sàkku na sa ngërëm ba am ko. loolu nag mooy doxee nub taalibe bi. ndax lu dul ak taalibe nirul woon sëriñ Modou xamul woon leneen lu dul loola it kon nag ñi ngi ñaan bu baax képp koo xamante ne jàpp nga ci bis bi ak noo ci mën a jàppe rek suñ borom defal la xéewal yu yaatu te la ko te xam ne ñëpp am lañ ci yéene bu woon dara it jëmmi soxna Faty rek ak yitte ji mu am ci nit ñi ak ni mu mën a sonne ci nit jar na jëkku rawatina nag bu defee nii bis bi defal ko way juróom boole ci sëñ kon soxna Faty si mut laa nee na mi ngi lay sant ci turu sëriñ Cheikh Abdou ci turu njabootu Cheikh Abdoul Khadir gépp ci jëf ji nga xamante ne ñépp la war muy doom di rakk bu ci ne ñaanal ko war na la fàttaliku ko war na la ñoom ñëpp waxtu wu jot ñu ngi koy ñaanal ñu ngi koy fàttaliku kon nag bu yàlla dogalee yow nga yëkkati bis bi te yëkkati ko ci passeef di ki toggoo coono yu bari loolu lépp day tegtaleen rek li ngay def ñor na la waaye nag lu baax moom la ki sëñ daan wax rek danaa wax ne jëf ju baax ab ah, danaa wax ne am murit fu mu nekk day yamale doon fa benn murit ak doon fa junni murit kon nag ginnaaw leer na naññ la li nga tege yoon wu leer naññ la jàpp ci bu baax te góorgóorlu ci rek kon sëñ Mor sëriñ bi nee na na nga leen santal soxna maam Bousso bu baax na ko bu ko yëgoon rek te ñaan mu doy sëkk ndax ñoom ñii fi nekk ak njabootam lan te man nañ ko fay teewal waaye lii day firndeel na rek bis bi ñor na ko ak it tolluwaay bu mu toll ci ñoom rek kon ñu ngi ñaan yàlla na ko suñu borom sàmm moom soxna Mame Bousso ñu ngi gën a soññewaat bu baax ci ñun ñii nga xam ne ñoo fi daje. li nga xamee ne borom bis bi ñu fàttaliku di sëriñ Modou moo la daan soññee rek mooy ñu gën a góorgóorluwaat bu baax ci jàmm yàlla di góorgóorlu bu baax ci sunu taalibe te bokk na ci ay kàddoom daana wax ne te loolu it da koo gis ci jamono ji mu bari lool kenn ku nekk jàpp na ne sax ab sëriñam waratu ko wax dëgg bu la waxee dëgg nga mer bu la waxee loo xam ne jubuloo it nga jàpp ne sëriñ bi li mu la wax jubu la moo tax kenn mënu ko def te moom sëriñ Modou danaa wax ne ñaari taalibe am dafa am taalibe boo xam ne saa yoo xamee ne sëriñ bi wax na loo xam ne dëppoo nag bëgg-bëggam moom mu ne maa fi gën sëriñ saa yoo xamee ne sëriñ bi wax na loo xam ne dëpp wutal bëgg-bëggam mu ne sëriñ bi li mu wax kenn mënu ko kon foofu jamono dafa toll te waruñoo topp jamono ba fàtte sunu taalibe te taalibe gi moo ñuy may dara ci sëriñ Tuubaa sëriñ Tuubaa nag képp ku ci bëgg dara ay caaxaan mayewu ko te li mu am lépp moom sëriñ bi da koo liggéey ba mu ko liggéeyee ba ñëw diggu ko kenn uh, ndax bu ko doon maye sëriñ moo roq bu sa ma mu toogaloon ci Jolof ak sëriñ Fallu wax leen ne li fi nekk ak taalibe koy maye bu fekkoon ne loolu lu ñuy maye la mu man ko tibb jox leen kon nag ku bëgg da képp ku bëgg dara ci sëriñ Tuubaa da ngay bañ a nax sa bopp ba nga nax sa bopp nag mooy kenn ku nekk ci ñun ba ngay ko jëbbul la nga wax yaa ko waxal sa bopp mooy yaa wax sëriñ bi ne ko jox naa la sa bopp adduna jox naa la sama bopp adduna ak alaaxira loo ma digal ma def ko loo ma tere ma bàyyi ko loolu nag bu ko am murid waxee bu dee dëgg ci moom amatu ci boppam dara kon nag war nañoo fàttaliku waat bu baax suñu digganteeg Serigne Touba te bi nga topp jamono ji rek. topp adduna bi nga xam ne. topp adduna bi nga xam ne. lum la may tey. may tey. bu subaa mu xañ la ko. te li ñu wut Serigne Touba. boo ko amee. am àddina am alaxira kon nañ fexe ba gën a sàkkuwaat bu baax. ci lii nga xam ne ñu doon wax ñëpp wax nañ ko fi te nangu lu xeebu lii doon jéem a leeral leeral yu yaatu bañ gisee jotaay yu mel ni di am ak wax ji dañuy bëgg ñu fàttaliku gaa yu baax yooyee jéem a roy ci ñoom te xam ne ak taalib rek mooy li ñuy jëriñ kon nag yàlla nañu ko yàlla defal. kon nee na ñu ngi jégalu lu baax ndax soxna si toog. ñuy guddal di wax rek jaaruwut ci ñoom waaye nag ay bokki taalibe yu daje moom it ndax ndax Moussa nangoo doonub sëriñ. di waxtaanee sunu jëwriñ muy sëriñ Modou ndax moom Moussa doon doona nangu Moussa nangoo doonub sëriñ. loo mën di wax it. boo ñëwee ne ko sama sëriñ mu joxoon la photo ku baax gi ne la kee mooy sëriñ bi man sa jëwriñ rek la kon nag jëwriñ ju mel noonu ku koy waxtaanee. war nga fàttaliku bu baax ak taalibe bi ak doxinam. kon soxna Fatou sëriñ bi nee na ñu ngi lay sant bu baax. bu fekkoon ne di xamal ne bu fekkoon ne dangay ngay dakk ci lii ngay def. kon na xam ne jam nga. kon ñu ngi ñaan bu baax yàlla na gën a yàgg. yàlla na la yàlla sàmm. te la. ba liggéey bi fa nga ko bëgg a yóbbu suñu borom def ko. te coono yi ngi ci jàngonteel jàngonteel yëpp. ki tax nga di ko def. yàlla na langul jëf jëpp. te defal lépp aw yuutu sottal ko ko. sottal ko waajur wa ak waajur yi ya fa nekk yëpp. ñu ngi sant ñëpp. tàmbalee ko ci jàngkati alxuraan yi. jàngkati xasida yi. sikarkat yi. duruskat yi. ak ñi nga xam ne sax dangay togg ndab di ko joxe ngir yàlla ak ñi am yéene ñëpp te bëgg a jëf ñoom ñëpp soxna si mu ngi leen di sant di leen gërëm kon nag ñi ngi ñaan yàlla nañ ko yàgg te yàgg koo ànd ak sunu kilifa yi at mu ñëw mu mu kawee morom ja te noonu rek lay demee ndax mbiru sëñ Tuubaa amul tànk ginnaaw tànk kanam rek la am jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh rabbi maa yeesu asaan xat fajaa bi jaay afdali man lillahi xat lajaa hamdi li rabbin karimin la sharika lahu wa sadril yawma nuuru saatil mala muhammadun salawatullahi fi abadin حلي في حزبه كل بي كلا أده إلهي الذي همت مواهبه لجملة الخلق ما يختار من براه رحمن هب لجميع خلق رحمة من يغني عن السر من قرآن قرا حرمة المصطفى عن كل مفسدة وارتحم الخلق يا من جد بدا يا مالك الملك يا من جل عن قود ارحم جمع الورى يا عالي ردا يا مالك الملك يا من جل عن قود ارحم جمع الورى يا حالي ردا محوت ما قد نهى القلب من درر بجاي أفضل من لله غلجا آمين يا ربي بحمرة الجدال وحمرة القرآن واقفني الجدال آمين يا ربي وحسن همري وفيك بالمختار كل عمري آمين يا رب الورى بلا كدر يا أنبي قدر سبحان ربك أعب العسي تما يتفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بك سعود القادم بك آمين آمين soxna si nee na yàlla na dajee ngërëm Rafah TV une chaîne de télévision culturelle et religieuse Rafah TV ñëppay dañ agréer كنا به ننفرد